pourquoi nga ne du Pastef yëpp ñoo porté Bassirou yan Pastef ñoo àndul. ak Bassirou ah, mais nag attention mais les Pastef radicaux yow wax nga ne am na ñoo xam ni nee nañ. Ah, c'est Sonko ou loolu am na wala amul Pastef. waaw ah, mais ce sont des militants. waaw d'accord waaw d'accord waaw mais d'accord mais. mais ban yan responsable Pastef dama lay Yaakaar ñi nekk ci ñi déclaré ñan ñëpp théoriquement ils sont avec Amadou Ba non en théorie voilà. si Mame Mbaye nee na moom ouvertement. waaw mais je veux dire est-ce que dans la réalité defal ndànk. xam ah, nga defal kenn dégg ko mu. mu mu yàbbi. mbaa mu accueillir Amadou Ba à mbaa mu ànd ak moom. man yow xam nga ni Sénégal. Malick mbay kenn dégg ko mu yëy mu yàbbi. maa hmm. xam nga ni am na ñu bari ñuy reetaan ñoo xam ne. Ah? waaw dama lay expliquer xam nga Sénégal. moom Arona Dia déggaguñu ko. ma wax la benn affaire ci Sénégal. Hmm? Mhm. Sénégal ñiy ree ñëpp kontaan nañu maa xam nga loolu góor gi a ko waxoon Keba Mbaye nu mu tuddati génneel photo bi ma gis ko ci livre bi xam man sama papa la woon libre livre bi waa comité international olympique euh, CIO nga xam ni moom moo nekkoon moo fa ëppoon doole ci kii nekk jiite ko tout ça ñoo insister pour ma bind ko ci moom dégg nga wax bi mm-hmm. dafa am lu ma waxoon nee na ma Sénégal ñii ree ñëpp kontaan da wax bi mhm. deuxièmement mu ni réew mi guddi gi ma ne ko ma ñëpp dañuy tëdd waaye kenn du nelaw wax yooyu réew na de donc am na ñu bari ñoo xam ne dañuy ñëw nga yaakaar ne dañ cee bokk fekk bokkuñu ci dañuy sauver seeni arrière mais daal dénkaane nguur moom di manière et d'une autre moom du mujj fenn man day duma ko dugal kenn quelles sont les chances est-ce parce que tey hmm. y a une coalition qui est en train de se former autour de Bassirou Diomaye. Aminata Touré a rejoint. Mm-hmm. Euh, Aïda Mbodj euh, bon Maïmouna Bousso c'est c'est c'est normal c'est un allié euh, c'est une alliée naturelle euh, coalition bi mu ngi commencé formé wu am na ëpp chef chef de partie yu bari Babacar Diop va se déterminer ñu bari ñoo xam ne dinañu déterminer wu waa Pastef ñu ngi annoncé la coalition du siècle et ils sont sûrs de leur victoire j'ai reçu ici euh, mercredi Daouda Daouda Ngom euh, patron des euh, du, du membre du du MONCAP coordonnateur des cadres de PASTEF et lui il parle comme si on était le 3 avril Bassirou Diomaye Faye a a a, a prêté serment. Mm. Euh, quelles sont réellement les chances de Bassirou Diomaye Faye est-ce que mën na remporter l'élection au premier tour est-ce qu'il sera au second tour euh, yan chance la am. su defee le trop plein de voix de Pastef dina dem deuxième tour. dina dem mais mënul remporter l'élection au premier tour non mënu ko amul benn sondage bu waneloo mais bu defee le trop plein de voix de Pastef. dina dem deuxième tour waaw. Cheikh Tidiane Dièye. te loolu dafay fekk te loolu dafay fekk parce que loolu dafa am ay conditions yu bari. Mhm. dafay fekk Pastef yëpp xaajte doo dóorandoo. ànd ak Bassirou Sonko porte ko. voilà que Sonko déterminé wu. waaw clairement que c'est Bassirou le candidat de Pastef. Mhm. ba pare xam nga Pastef ñu leen faral mooy jeunesse bi jeunesse bi inscrire ñu te bariwuñ ci fichier bi.